bisam ba nag moo jub siwaat di ñetti fan ci tam xarit yow mii di mbokk mbaa xarit ñëwal indaale say xarit ku jaaxle ñëw sa jaaxle jeex ku wopp ñëw sa wopp féex ku bëgg a gudd fan te weex tallak bi jaaw ñëwal xarit Cheikh Abdou Khadir fii mu ne dendak ak yoneen ba fee mu ne ak Bamba nag ca lay gënee gaaw nag ci faj aajo xarit aajo jowaay am andi ko Cheikh ji li mi fajal la ko te looy ragal it tudd ko Cheikh ji li dàq ko xarit ku ne na ñëw taatanu yiw Cheikh Moustapha nee dana taw nee ko indi bagaan ko ndaw day ricc bul ko def xarit asalaamaaleykum bokki taalibe yi noo ngi fii ci kër gu sell fi mu daa faja aajo yi jaam ñi di xetti li ñëpp noo ngi fii ci biir kër Cheikh Abdoul Khadir Mbacké dend ak Serigne Moustapha Mbacké rakam ju tedd ji ak Serigne Sidi mu yor màggal gi ak njaboot gi yëpp sëñ Moustapha nag jël ndigal ca magam ju baax ja sëriñ Cheikh Mbakkam Cheikh Abdoul Khadir mi nga xam ne mooy Cheikh Abdoul Khadir tey mu dem jëli ndigal ci Cheikh Mouhamadul Mountakha xalif général kullu murid xanaa ku ne xam nga diggante Cheikh mun taxa ak Cheikh Abdoul Khadir doomam la ab taalibeem la soppem la waaye xaritub Cheikh Amadul Mountakha la woon moo tax bis boobu nag ah mi ngi doon le 21 ci weer wii nu nekk. di ñetti fan ci weeru tamxarit di bis bi Cheikh Abdou Khadir gane jamono muy tombee bisub ajjuma mu dellu ca cosaan la kon la Serigne Touba waxoon maam Thierno Birahim ku ñëw ci bis ba sëñ mu ne am ca loola lu mu ko waxoon Thierno yéexal say jéego ba ngay dem ba ngay dem ba ba ngay ñëw koo dajal du dem safara kooku mooy Cheikh Abdou Khadir ilimaani teeg bu ëllëgee moom la ñuy fàttaliku le 21 di ko ñaanal kenn fàttewul Cheikh Abdou Khadir Mbacké waaye bisam nag bu jubsee sëñ Moustapha dana toog fii ci turu sëriñ Cheikh mu Cheikh Abdou Khadir fàttali leen ko bis Cheikh Abdou Khadir waaye bis boobu ñu ñaanal ciit taawam ba ka ko wuutu woon tamat sag muy sëñ Modou Mbakke moom Cheikh Abdou Khadir ñoo ngi nii nag tey toog ak sëriñ Moustapha ci mbaar mi sëñ bi nekkoon ñu nekkoon ko fi di ko siyaare ñu yëkkati kàddu gi jox ko sëriñ Mamoun Bousso mu ubbil sëñ Moustapha Mbakke Cheikh Abdou Khadir nun ñëpp ñu déglu ko Cheikh Mouhamadou Moustapha noo ngi lay nuyu. Hmm? di sakku nuyoo bi nga jotal na ko ci Serigne Cheikh Abdoul Khader. mu jotaloon na ko Serigne Mountakha ak njabootu Serigne Abdoul Khader gépp di ñaan taxawaay bi sa borom yàggal ko. ñu yàgg ànd bis bi yàgg ko taxaw jëmm ji nga xam ne nag moom nga xam ne moom moo fi dajale. ñun ñëpp ñi teewut. xam nañ tolluwaayam ci lislaam xam nañ niñ demee ci seen Tuuba xam nañ lim liggéey ci yoon wi kon nag li ñuy ñaan mooy la sëñ Moustapha mii daa wax kuy indi na nga indi ak bagaan waaye ndab luñ fi lu fi waaye indi rek danañ la ko duyal ndax liggéey na ko ndax nga ne lii yëpp sa borom dajale na ko ci moom inna al fadaila kullaha law jumia rajaat bi ajmahiha ila sayayni tahdima amrillahi jalla jalaaluhu wa saayi fi fi islaahi zaati lbayni kooku mooy Cheikh Abdoul Khadr nga nga nel yëpp daje na ci moom yaar ya ca gën kawe nag mooy màggal mbirum yàlla ak jariñ bindeef fi ak di di defar seen diggante mm. ku ko xam-xam nga ko ci loolu te it yi buñ doon ay ay ay kéemaan yu ñuy yu lim dañuy wax ne euh, lépp daje na ci moom baa nekkul ci moom ku ko rasi feneen yi doo ko gis kon daal fa tabaarakallah ñu jox sëñ Moustapha kàddu gi mu jotal li nga xam ne moom la jëli ci sëriñ Cheikh jëme ko ci bokki taalibe yi nu maase déglu ko wa rahmatullahi taala wa ngi nuyu mboolem mbokki jullit yëpp di nuyu mboolem mbokki taalibi yépp ci turu sëriñ Cheikh Mbakke mi nga xam ne mooy xalifa Cheikh Abdoul Khadir Mbakke maa ngi leen di waxtaanal waxtaan wi ci aw turam di leen jottali kàddoom ak nuyoom bu mu jëmee ci mboole mbokk yépp di nuyu di di di leen xamal ne ginnaaw buñ jullee dem na ci Cheikh Mouhamadul Muntaxa xafizahullah waraahu wa ayyadahu bi nasrihi dem siyaare ji ko ta yëgalaat ko bis bi sàkkuwaat ci ndigal sëñ Muntaxa bég ci lool joxaat ko ndigal ne ko nu ngeen ko daa defee na ngeen ko na ngeen ko defee te gën koo fonk kon bis la boo xam ne am nañ ndigal ci nuñ ko doon defee nañ ko ne defee te gën koo fonk ki fi nekkal sëriñ bi moo ko wax loolu kon loolu la jële ci moom mu soog koo mën a yëgle ndax bu ca demoon lam ko lu mu ko wax rek moom la def mhm. waaw la ba mu ca demee nag loolu la ci jëlee kon nag moo tax mu ne nañ dajale bokk yi ni ko sëñ Muudu Maamun Buso mi waxe yëgal leen nag bis bi ndax kenn fàttiw ko bis bi ku ne jàppal nga ko sa bopp kon ñu ngi leen di nuyu nag ci aw turam di leen fàttali bisub sëñ Abdul Xaadir bi nga xam ne ni nii ngeen ko déggee ñu waxe ko ci jataay bi mooy dëppook ajjuma ñaar fan ak benn ci weeru tubaab di war a dëppoog ñetti fan ci tamxarit wala ñaari fan ya ñi ñi ngi koy yëgal mbooleem mbokki jullit yëpp di ko yëgal mbooleem taalibi yëpp di ko yëgal mboolem soppi yëpp di ko yëgal mboolem wëllëri yëpp fu fi waaye mën a ne te seqoon koog sëñ Abdul Xaadir ñi ngi la ko yëgal di di ko bokk ak yow di la yéene yiw wi ci yàlla def te defal ko sëñ Abdou Khadir te te jaarale ko ci sëriñ Touba mi nga xam ne moo yor kudd gi lim ko ci sedd ñu yéene ñëpp jariñu ci nañ ko daa waxe it ni lañ koy waxe waate kuy ñëw na nga indaale say bagaan mm-hmm. te na doon yu yaatu wa jifaanin kal jawaab yi wa xudóorin rasiyaat nañ nañ indi bagaan yoo xam ne day toll ne ay baaj ci ci yaatu ci xam ne ki yor kudd gi muy sëriñ bi mm-hmm. lim ko sédd ku ñëw sëñ bi mën na la ciy duyal ba nga feesal del ci bu àndeek pas-pas mm-hmm. waaw kon nag ñi ngi nuyu ñëpp di leen xamal ne moom euh, li bàyyi sëñ ma Maodo Moussa waxoon rek waa kër sëñ Touba mm-hmm. moom ba ci sëñ bi ñibbisee Touba ci alxames ji la ko sëñ Mbàkke digal mu def xasida googu da caa wax ne fahumoo kan nujoomi man talqa minhum xiltahu kaana sayyidal axyaari dane doomi sëñ Tuubaa de niñ bindoo mooy ñoom ñëpp ñi biddiw lañ mel koo ci dajeel rek neel kee gën bii moo nartajin jibaara kusóorin maa tas yii di maa banaa min faxaar ci ñoom nag ci la ñuy yaakaare li sëñ bi doon tabax ñu yëkkati ko ba mu àgg fu mu war a àgg kon loolee mu doon yaakaar yàlla da gël na ko waaw te te ci njëlbeen gi la hmm. kon bis la bis boo xam ne ñëw leen bu baax a baax a baax a baax bàyyiwuñ kenn ñi ngi soññ nag alxuraan ji dara gënu ko ci ñor ndax ki nga xam ne moo moo moo mooy sëñ Abdul Xaadir kat dégg naa ci moom ba tàyyi mu ne ab julit buy jàng alxuraan na ko jàng ci ci am xelam xalal muslimi an yaqara alquran bi xaqlihi wa qalbihi loolu daa wax kon koy jàngal kaamil naka nag kaamil yi sell te boo koy jàng na koy jàng ci sam xel ak ci sab xol li yestaxali sa minhu duruusa wal mahaani loolu loo xam ndax ndax nga man cee jariñu ba maanaay ak lépp nga yëg ko ba mu laa jariñ kon loolu mboolem ku daari kaamil yëpp li ko dale fii ba njaareem ba daarul muqti foolem fu daari fa daari kaamil nekk ci yoonu murid rek ak fu ab jullit ne te mën a jàng kaamil ñi ngi lay ñaan nga jàngal nga jàngal ko kaamil ku ku mën a def salaatu ala nabi ku man xasaay ci ñi ci biir réew mi ak ñi ci bitim réew fàtte wuñu leen hmm. ñu ngi ñëwaan ñëpp ñu jàng ñu ñu ñu ñu jàngal ko ndax lu baax du doy te sëñ bi nee na isid duha yan fahu maytan fil xubóor wa yan fahul xayya wa yujibul ujur ñaan waxtu wu ne am na njëriñ dana jëriñ kuy dund dana jëriñ ku fi nekkut loolu sëñ bi wax dana waralit ay tiyaaba kon nag sëñ Abdou Khadir mooy ki nga xam ne loo xam ci lu baax rek boo ko waxtaanee ci moom moo tax ma ne xaddis xan salaahihi xad ma wax ne xaddis xanhu wala xaraj sëñ Abdou Xaadir fa huwa al xalifatu rabi <laughs> haddis anhu wala xaraj loo xam ci lu baax rek boo ko waxee ñi ko xam danañ li wax nga dëgg ci sëñ Abdou Xaadir haddis han salaahi wa tuqaahu waxtaanal ci ak baaxam ak ko ragal yàllaam han suhdihi wa warahihi han taahaatihi wa hibaadatihi han jur'atihi fi lxaqi wa jahrihi bihi han iqbaalihi halallaahi wa idbaarihi hani dunia wa hanin fitaahihi wa sahati sadrihi wa sahati sadrihi wa xilmihi wa siddati wa dooxihi wa damaasati axlaaqihi yooyu yëpp loo ci waxtaan sëñ Abdou Khadir waxtaanaat ci ci baaxam ak waragal yàlla am waxtaanaat ci ni mu dëddoo adduna ak ni sàmmoo woon ak jaamu yàlla ni mu ko nose woon ba waxtu wu ne lam ca war a defal yàlla xam na ko ñi dëkk ak xam ko <laughs> ba kenn ko ci soxla xam waxtaanal ma waxtaanal ak moom waxtaanal ci moom ci nim ñëwee woon dëgg te du ci rus kenn boo waxee ma ne wallaahu laa yastahi min al xaq yàlla amul kersa ci dëgg waxtaanal leen loola neex ci moom ci nim jubloo woon yàlla ak ni ma woon ga wanee woon ganaaw adduna daray adduna musu koo yëngal musu koo ittewoo loo gis ñu def ko ci kër gi rek ay nit nit ay nit a wax a wax bañ def ko fi waaye musul ne nañ ma defal dara ci adduna lur jàkka ku ku ku lewetoon la ku yaatu dënn la woon ku ubbi ko woon la yi ak nit ñi ak i bokkam ku ku weexoon tàll la mooy ku amul dara ci naafiq nga xam ne lu mu la wax rek sëñ Abdou Lahad da ko wax sax naan danaan wax gannaaw waxi sëñ Abdou Lahad dara newu fa <laughs> maanaam lu mu la wax gannaaw bu jërul làmb naan mën na lu mu ci war a jublu ne <laughs> loolu loolu nangoo naa ko ci làmb ñëw mu ne gannaaw waxi sëñ Tuubaa dara newu ci waaw kon noonu loolu kooku moom portel na ko lépp hmm. ak nooy jikkoom kon nag kemeel noonu moom la ñuy màggalal yàlla na ci yàlla jëriñ te defañ ci ñoon ak dégg ak topp ba kullu haamin wantu bi xëy na asalaamaaleykum wa rahmatullah kon ñaa ngi yëkkati kàddu gi jox ko sëriñ Alaaji Buso mu wax ci turu bokk yi ak seexi kër gi waaye dafa am ñu bokk ci biir kër gi di président Sénat Pape Diop ku ne xam ko ak kër Cheikh Abdou Khadir ancien premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye ku ne xam ko ak kër gi ak njabootu Alioune Badara Cissé ak ministre bi ñu dénk commerce di Abdou Karim na moom itam ku ne xam ko ci biir kër gi ak Abdoulaye Lam sunu mag ñoom ñëpp it dañoo bokk ci biir kër gi kon ñun ñëpp ñu déglu Alaaji Bousso. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ci turu Cheikh Sidil Mokhtar Mbacké mi nga xam ne mooy coordonnateur u màggal gi. moo yor kàddu kër gi mm-hmm. mi ngi ci ndigalu sëriñ Cheikh Mbacke mi ngi woo mboolem bokk jullit yépp da tàmbalee ci maam ma xaram lu ci booy bokke mu ngi la ci woo ci bis bii ak mboolem bokk ci askanu Mamour Anta Sali nu ci waay mën a bokke ca tàmbale ca kë ci mag ba ca kë ci gën ndaw di woo mboole njabootu Seexul Xadim képp tàmbale ca kër ga gën a màgge ba ca ka gën a ndawee mi ngi woo ñëpp di woo mboolem mbokk yi mbooleem xarit yi mboolem wëllëre yi mboolem mbokki mbokki ak mbokki mbusoobe ak mbokki aafe ak mboolem mbokki ji yëpp ba kenn Cheikh Abdou Khadir lépp ñëpp la di wooy itam mbooleem sëriñ si seex si nga xam ne ñoo àndoon ak sëriñ Touba sëriñ Abdou Khadir amut amut xajji ak seen ci kenn ñëpp la boole woon jaboote ñu ngi woo itam mboolem euh, julli yëpp nag bi si fa amma waaye nag mu wal muridina bi si fa xaasa bawul kenn ndax Sëñ Abdou jullit ñëpp la boole woon taalibe yëpp la boole woon amutoon ay ay ay ségrégation ci kii wala kee ñëpp la boole woon maasale kon ñu ngi woo ñëpp itam ñu ngi woo mboolem turuq suufi yi yëpp itam bawul kenn ndax ñëpp ay xaritam lañ ay bokkam lañ ay wëlatam lañ kon sëriñ woo woote bu yaatu mu ngi woo itam président de la république bis bi di nga ko yëgal di ko yëgal mboolem gouvernement bi di ko yëgal itam mboolem opposition bi yëpp bawul kenn képp ko xam ne kii am nga kàddu ci réew mi rek ñu ngi lay woo ci bis bii waaye woote bi nag mu ngi ci jiital nee na ñi nga xam ne ñu jàngat alxuraan yi nee na ñu ngi leen yëg si Moussa waxee léegi rek fu waaye mën a nekk rek daara yëpp daal yëpp ñu ngi leen jàngal alxuraan lu ci waaye man rek na ko def ngir jëm si Abdou Khadir di ja ak ak mboolem ñoo ko te xasida itam fu mën a nekk muy ñi yëkkateeg ñi duurus ak ñi yaru ñëpp rek ñu ngi leen woo ci bis boobu la nee ne nag mi ngi fàttali itam képp ko xam ne kii daa nga taxaw ci bis bi lañ ci laa taxawee ba te ñu ngi fàttali dara soppi gu ci loo ci war a mën yokk nga yokk ko rawat naag ña nga xam ne bii nag dina def ay xéwal di ko indil njaboot gi te ñooñu ko ci bokk na ci Serigne Cheikh Bara Mbacké ak mu njabootam bokk na ci ba tey Serigne ak Serigne Cheikh ña ngi jaabi ak mboolem njabootam gépp Seydou Niang ak mboolem bokki afam yëpp ak euh, Serigne Modou Mbacké Abdou Salam ñu xelef si Abdou Salam mu toglu ak mboolem njaboot si Abdou Salam gépp ak Serigne Afay Niang xulle ak mboolem njabootam gépp di ko yëgal itam Serigne Galasmaane di ko soññu moom itam ci taxawaay bi mu taa taxaw ci mboolem xéwal yooyu la ak Serigne Mamour Ndiaye moom suñ euh, suñ Mbàkke Njaay ba bay suñ Njaay Gédé moom itam ñu ngi koy soññu baax di fàttali bis boobu si daa taxaw nu mu fàttali loolu incha allah waa ko suñu Amidu Njaay itam kasalik dañu caa taxawee rek ba tey ñu ngi koy fàttali ak mboolem mbokk yi nga xam ne bii daa togg ay xew di ko indi ak mboolem turandoo yi ak mboolem euh, soppe yi ak mboolem wëlër yëpp kenn ku nekk ñaar bu ko leen fàtte di woon ak mboolem daayira yi waaye mën a nekk yi ci biir réew mi yi ci bitim réew mi fédération bi mboolem ñu daayira italien yi mboolem daayira Amérique yi mboolem daayira Espagne Guinée Bissau mboolem ñu nga xam ne ñu ci Afrique ak Europe ñëpp bawuñu kenn di fàttali na nga bis itam daana def waxtu bu mosaa dikk ñu waajale ko ay bis ay waxtaan yoo xam ne yii dañ koy def ci kenn ñenn ci njabootu euh, si Abdou Khadir yi ak bokkam yi ak taalibeem yi tey nag am na ñetti conférence ñu war def yoo xam ne mu ngi koy waajale bu njëkk ba incha allah ñu ngi koy defe gedde kër sëñ Maodo aw soxna Mbàkke te ka ne ca bopp kër njaboot gu tey yi sëriñ si xam ak Gédé ak ay rakam kon fa lañ koy def boobu ngi nekk euh, alxames le 13 juillet ca ginnaaw takkusaan incha allah ñaareel ba ñu ngi koy defee njaayeen ci Mbacké kër sëriñ Daanu Ndiaye moom itam mi ngi nekk gaaw le 15 juillet moom itam ginnaaw takkusaan incha allah bi ci des mooy ñu ngi koy defee kër soxna Maam Moussa Mbacké moom sëriñ Abdoul Hakim te te defe ko nag kër sëriñ Jili Mbacké doomam mi ngi nekk altine 17 juillet incha allah ca ginnaaw takkusaan conférence sadi yi mooy moom itam incha allah mi nekk àllarba 19 euh, sulet ko koy def moom itam incha allah mooy si maamoor baak xam si di ñoom sax dañu ci dikkaat incha allah gën te yaatal kon nekk nag ajuma 21 sulet 2023 incha allah fii ci kër gi kon ñu ngi fàttali ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñu siyaare am la suñu ci kilifa kër gi sëriñ Cheikh Ahmadou Xalifa Cheikh Abdoul Xaadir ñu koy ñaanal suñu borom yàggal ko fi loolu tëral ko di ñaanal suñu kilifa bi nekk suñu wet monsieur Amadou Moustapha monsieur Abdoul Khadir di ñaan suñu borom yàggal ko fi te wéral ko ba mu bëgg yéen a liggéey seen lépp mu ko liggéey ñu ko di yëkk suñu kàddu nag ci ndigalum si moom si nga xam ne moom la moom lañ teg liggéey bi ci loxoom lii mu tegaat ko suñu loxo ñun sëti si Abdoul Khadir yi muy bisu conférence bi nga xamante ni baaxoo nañ ko amal fii ci kër si Abdoul Khadir ci ba di ko waajale màggal eh, ñu di ci woo mbool mbooleem ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal sëñ bi ñëpp nag mbooleem ñi bokkal sëñ bi nag bu ñu ko xasee wax mën naa ne ñëpp ñëpp ngi ci biir eh, kon ñu ñu ngi ciy woo mbo set seen doxaadire ak set soxna may set soxna xat yi ak njabootuk eh, mbosoo bi fi nekk ak su mbokki mbàkki mbàkki yi nga xam ne ñoom lañ bokkal sëñ bi ñëpp ak ak turandoy seen yi nga xam ne ñoo baaxoo di ànd di amal bés bi ñu ngi ci ngi ciy woo mboolem jullit yi ak mboolem taalibe yi di tàmbalee ci woote bi ni ko suñu alaaji mi waxoon léegi rek daanaka mënoon nañ ca bañ ñuy jaar ci limaat bi waaye mboolem ñu bokkal Serigne Touba ñëpp ñu ngi leen koy ñu ngi leen ci woo di ci woo mboolem ñu bokkal suñu Mor Anta ñëpp ak mboolem bokkal maam Balla ak maam Maharam ak mbokk suñu mbokki Bousso bi mboolem ñu bokkal waa kër suñu bi ak maam Saa Bousso ñëpp ñu ngi leen di woo. ak mboolem taalibe yi nga xamante ni ñoom ñoom ñoo ñoo ñoo baaxoo di am di amal bés bi. conférence bi ñu ngi koy defee fii ci kër gi ci bu gën a tàkk sant te 17 heures sëriñ Mamour xam sa diine lan mooy def waxtaan wi ak sëriñ Mamour am di ñoom ñooy def waxtaan wi ñu ngi ci woo mboolem taalibe yi ak jullit yëpp xam ne bés bu am solo la boo xam ne sët Sëriñ Abdou Khadre ñoo baaxoo di ànd di ko taxawal di ci ànd ak mbokki taalibe yi. di ci ànd ak ñëpp nag képp koo xamante ni daal euh, euh, taalibu Serigne Touba nga na nga xam ne bis bu bis bu ñu ñor la ndax ñun amul lu Serigne Touba kon nag bis bi bu ñëwee ni dañuy futteeku laxasaa yu topp ci ginnaaw Serigne Sidi mi nga xamante ne mooy suñu jëwriñ ànd ak moom ci liggéey bi bés bi ñu taxawu ko ba ba ci àggee mu mel nu nu kawe nam daa mel li ci soppeeku nag mooy daanañ ko def guddi waaye ren nag ginnaaw takkusaan lañ ko def kon loolu it ne ko mbooloo mépp teel a bàyyi xel te ñëpp ñëw xam ne képp ku fa ñëw ni ko si Moustapha waxee boo andalee seen ndab noo nu ndabee toll rek suñ bi doy loolu ndax seen boxaari moom mbiram ñëpp xam nañ kon ñu sant ñëpp di gërëm ñëpp di ci woo ñëpp rek képp koo xam ne daa nga ci jàpp képp koo xamante ni mm, am nga noo ci daatu xawe nga yokk xam ne mbirum sëñ Tuubaa moom amul tànk ginnaaw tànk kanam la ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ci woo ñëpp nag mboolem ci ci ci tuut maa kàddu gi rek maa ko wax ci mboolem ku waa kër Sëñ Abdou Khadre Mbacké rawatina nag yi nga xam ne ñoo aju ci kër Sëñ Abdou Khadre te ci fédération bi moo xam fédération bi nag Touba wala bi nekk Dakar te Serigne jiite ko ak mboolem daayira yi ci aju ci kër Sëñ Abdou Khadre yëpp ak fuñ ci mën a bokk. ñu ngi leen di duyu di leen sant di leen gërëm di leen fàttali suñu bisu bopp bi nga xam ne abuñ lu may moom taxawaay bi nga xam ne moom lañ ci daan am ñu ngi sàkku ñun ñëpp ñu maase ànd am taxawaay bu raw bañ bañ ci daan am ndax ñu bis bii rek lañ am kon nag sëriñ bi nee na ñu ngi leen koy fàttali bu baax di ko di leen di leen ko yëgal di leen xamal ne itam lim ci gën a fonk mooy njàngu xasiida bi ren sëriñ Seex da cee su woote soññ ci sëriñ si di neen mi ngi leen ko fàttali leen xamal ne Xaadim Géey mooy fanaan ci baas bi ba bët set sëriñ bi nag nee na buñ ko fi bàyyi moom dong kon daayira turandoo yi seen taxawaay yi ci daanam sëriñ bi ne digal na leen ko ñu taxaw ko fanaan ci baas bi ak ak mboolem daayira yi nga xam ne ñu aay ci fédération bi yëpp di leen fàttali itam ne taxawaay yi nga xam ne fédération bi daana ko ci def muy lu jëm ci wàllu mbala mi incha allah ren la 14 lañ koy def di ajjuma loolu itam mbala mi ñu ngi koy yëgal ki nga xam ne mooy njiitul dëkk bi muy Abdou Lahad Kam bi nga xam ne mooy maire bi taxawaay yu rafet yi nga xam ne daana ko taxaw di ko fàttali itam nag mboolem fédération Dakar te jëwriñ bi Serigne Cheikh Goumbali jiite leen ak fédération Touba di leen fàttali gannaaw mbale mi itam nga xam ne moo war a nekk la 14 la altine ji itam di la di 17 ci la ñuy baas baas bi sëriñ bi nee na mi ngi leen di xamal ne ren màggal gi dafa taseek nawet kon nag baas yi bëri te te mel na war a mel ba nga xam ne ku fi dikk dara doo fi am benn gàllankoor wala benn jafe-jafe kon nag ñi ngi leen di sant yéen ñëpp di leen woo di sàkku itam ci kilifa yi ñu soññ daayira yi nga xam ne ñu aju ci seen njaboot ndax ñu taxaw ci taxawaay bi ñu daan am bi ñu taxaw ko ni ko Serigne Moustapha defee ak Serigne si nga xam ne saa bu njaboot gi dañ leen fàttali fédération bi dénkal ko ñu ngi koy sàkku njaboot Sibdu yëpp ñu def noonu soññ daayira yi gën a ñëw ci fédération bi trône Sibdu Xaadir itam ñu ngi leen di fàttali baas bi ñoo ko daan taxawee kon ñu ngi leen ciy séentu ñoom ñëpp la la la 14 incha allah ñu ngi woo ñëpp di séddu ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu ah ñu wax nag ci ndigalal Serigne Sidi mi nga xam ne moom la ñu Serigne bi boole muy suñu jëwriñ te doon jëwriñ ju neex a àndal ci ab liggéey ah ñuy wax nag ci turu jëwriñ yu mag yi nga xam ne ñoo ne ci biir Touba di tàmbali ci Serigne Jili Ndiaye ak sëriñ Touba Mbacke ba ci Serigne Mbacke jenn ak Serigne El Hadj ñoom ñoo ñi nga xam ne ñu ngi ci biir dëkk bi nga xam ne ñoo ñoom ñooy bokk di daje fii te ndoon ñu jàpp ci daayira bi lool sëriñ bi nag joxati ñu ndigal ndigal loolu itam nañ ko daa waxee rek ah sëriñ sii di wax na ne <clears throat> nañ ci jiital taxaw temm ci baas bi teew ci fu dongab am na tarbiya ne ci biir dëkk bi ak ñi ko dege jege ñëpp ah, baas bi nañ ci teew si ci liggéey bi nan leen ko daa waxee itam yéen moom seen wàll xam ngeen ko ndax moo daa doon rek njëkk fi mujj fi te itam ah lépp loo xamee ne sëriñ Afi Bousso mi suñ jëwlin dem na ci sëriñ Sidi mu jox ko ca ndigal itam ndigal loolu daaw leen ci am lu ngeen di xer yaar da ngeen ko daa def nañ ko bëggee kon noonee noonu rek lay wéyee ba tey ñu ngi fas yéene topp ci gannaaw sëriñ Afi Bousso muy socc sëriñ Sidi di ñëw ci ñun li muy wax ñu di ko def te bañ cee werante boole ko ak ab yar ak ak taalibe ndax doo nga am laxasaay kat dee wax ab yar ak ak taalibe moo ci war a jiitu ndax kun defar ba noppi war am jenn baj-baj joo xamee ne juy jaaxal kenn la loolu daal loolu daal mooy wax ji yàgg itam nag di leen soññ ci addi yi addi yi nga xamee ne daanañ ko joxe mu jëm ci euh, liggéeyab euh, màggal gi <clears throat> muy euh, sas wiñ ci daa am dégg ngeen ko waxtaan nañ ci bu yàggut ak yeneen yi ca topp yëpp nag ñu bëgg nag fu fi waay mën a nekk ñi ci réew mi ak ñeneen bitim réew ñëpp ñu teel ko yónnee ndax ñu mën koo daal ci suñu jëwriñ muy sëriñ Sidi mu egg ci sëriñ bi bu loola wéyee nag la ca des mooy am nañ benn réunion boo xam ne la 15 lay doon ñi woo ñi ci biir dëkk bi ak ñi ko jege ñëpp ñu ñëw teesu ci réunion boobu te déglu la ñuy wax ba xam ko ba koy dem mën ko yóbbaale ci sa njaboot sëriñ bi daal soññee na ci googu wet nañ ci taxaw suñ kemt laal kattan te góorgóorlu ci ndax sëriñ Abdou Khadir kat leen daa wax ñun ñi li ñuy doon doon gone di tuut tànk fekke woon ko daana def boo ne ko yàlla nanga fi yàgg mu ne kon mu baax ci yéen ndax na ngeen xam ne gii kër kuñ ci dugal wacc ñu la loolu nag jar na ne Sëriñ Abdou Khadre mos ku mu fat wëccu la ku ne xam na ne yàlla mën naa dogal nga egg fi nga bëgg a egg bokki jullit yi bokki taalibe ñu ngi leen nuyu bu baax te di leen ziar di yëkkati sunu kàddu ki turu mboolem turu ndoy Sëriñ Abdou Khadre yëpp fu ñu mën nekk ci réew mi ak ci bitim réew ci njiital Sëriñ Cheikh Abdou Mbacké Darou Salaam kàddu gi ñuy wax ñu di ko wax ci turam di soññ rek ak woo mboolem turu ndoy Sëriñ Abdou Khadre ngir di leen fàttali sunu bi nga xam ne sunu bopp la ndax ñoo ko moom ndax ñoo ko tàmbale woon ku mën a ñëw it daa sof ci ñun rek waaye ñun ñoo ko sosoon loolu nag ab soññale ci wane ne nit warut a sos dara ba noppi sàggane ko ba taxawaay ko ci war mu di ko sàggane di ko bàyyi keneen kon nañ xam ne ñun kenn jiituwul ci màggal gi ñu topp ginnaaw ku ñëw ci suñu ginnaaw lay topp kon ñu ngi soññi turandoo Sëñ Abdul Xaadir yëpp fu ñu mën a nekk ci ñu bàyyi xel suñu bisi bopp bi incha allah tam war a doon le 21 bu ko defee ñu xam ne la ci jiitu ci soññee gi nag mooy dañuy sàkku ci moom mu jaayante ak turandoom jàngal ko li tàmbalee ci benn kaamilu alxuraan ba fa kattanam mën a dee ko ko mën a defal boppam moo gën boo ko mënut mu santaane ñu defal ko ko lu ma laaj mu def ko te bu noppee mu fexe lim bi ñu jotal ko ñu jot ci bu jokkoo ak numéro bi 117 269 88 29 dinañ ci jot incha allah leneen li mooy taxawaay yi nga xam ne turandoo Sëriñ Abdou yi ñoo koy amal ci liggéeyi kër gi la ci jiitu mooy mbale mi nga xam ne la 14 la incha allah di ajuma ñu ngi ci woo turandoo Sëriñ Abdou Khadr yi nekk ci biir nekk rek mu ñëw ànd ko bokk taalibe yi la ko topp mooy tàmbali liggéey kër gi di tàmbali le 17 incha allah ñuy woo mboolem turandoo Cheikh Abdou Khadre yi nekk ci dëkk bi fu waaye mën a nekk le 17 boobu mu ñëw ànd ko mbokki taalibe yi ba ko màggal gi di jeex tàmbalee ko ci bâche yi ak conférence boobu nga xam ne Cheikh Abdou Khadre yi ñoo koy amal ñuy soññe bu baax it ci bisu màggal gi taxawaay yi nga xam ne moom lañ daa amal fii ci kër Cheikh Mamadou Mourtada ñu soññi turandoo Cheikh Abdou yëpp kenn fu waaye a nekk rek mu bàyyi la def bu bis baa ñu bokk fa yandu jàng alxuraan jàng xasida ngir sante ko suñu turandoo ci boole gu ñu suñu borom boole ak bu loolu jàllee it ñu bàyyiloo xel mbokk taalibe yi nga xam ne dañoo bokk ci turandoo yi te daan jaayante ay xéewal di ko def ngir yàlla ak jëmmi Sëriñ Abdul Xaadir ngi leen ci soññi ñu góorgóorlu ci seen kam te fexe ba mu agsi la ko toppaat mooy guddik màggal gi màggal gi guddi la boole ak bëccëg turandoo Sëriñ Abdul Xaadir baas ba seenu baas la kon nañ xam ne soññe boobu ñuy soññee ci fanaane guddi ga ànd ko Sëriñ Xaadim Géey ñoom ñoo ci war a jiitu nañ fexe ba bokk fanaan ci baas ba te bu leen ci kenn man ñuy yëpp ci addiyee mën nekk na waajal addiyaam te indi ko incha allah li ko tàmbalee alterné le 17 ba ko rog bisu màggal ga ku xëy si ci kër Sëriñ Abdul Xaadir bi mu fekk mbooloo bi nga xam ne ñoo koy saytu boo ñëwee nga joxe sa addiyee incha allah ngir ñu waajal ko màggal gi kon kàddu yooyu lañ daa nga woote waaye sa woote tey bii Mbacke xol yépp sedd na te yeggaguñu ca màggal ga te def ko ci ndigalal sa mag ji Serigne Cheikh Mbacke moom Cheikh Abdul Xaadir Serigne Modou moo ma waxoon ni ma sëñ Moussa buy tukki ma bàyyi ko bu ma tàggoo danaa ko bàyyi ma dem ndax du dem fenn yàq dërëb yoon wa bis baa ngi noonu nag mooy bis Cheikh Abdou Khadir xanaa dégg ngeen Serigne Lamine Diop ancien ministre la mu waxoon ne boo demee ci àll ba penku réer la boo séenee sëñ Abdou Khadir kabaral mooy penku kooku mooy borom bis bi ilimaan yi tey ba léegi ba léegi ilimaan la mi ngi ci penku jumaa ji l'islam jëmul Cheikh Abdou Khadir Sénégal yëbu ko ñi mu jur yar na leen taalibeem yi teg na leen siraatal mustaqim ka daa ka daa tudd doom yi di jullee ji néew yi néew yi faatu xam na ni kan mooy Cheikh Abdou Khadir kon bisam bu ñëwee ku ci feeñ ci lu baax dootoo nëbb kon bëgg na nu ñëpp feeñ yéen presse bi nag woo nañu ñëpp nii ngeen taxee ba bis ba lépp lu waay di jàllale ci Cheikh Abdou Khadir na ci waxtaan ak ñu yor commission bi lépp luñ la digal ak kuñ la booleel ak kuñ la ni waxal ak kii waxal ak moom waaye sakkuwunu koo gis ko micro kon bis boobu mooy bis Cheikh Abdou Khadir sëriñ bi ñu di la seereel sunu cant ci sëriñ Siidi yéenunu booleek moom waaye taxaw nañu rawatina nag fédération Ndakaaru sëriñ Cheikh Gumba la xam nga moom itam buy ñëw ànd ak kaar yeeg wata yi kenn des moom itam woo nañ ko woonuñu ñëpp bisu Cheikh Abdou Khadir ku ci feeñ ci lu baax dootoo nëbbu ku mu fat doo fanaan biti bis baa ngoog yi di maa ngi teeg ba liggéey le 21 di ñetti fan ci wee ci weeru tamxarit bu kenn manqué ñëw leen te indi bagaan yi Cheikh Abdou Khadir duy ko yàlla fi yàgg Mbàkke te wér bis bii nag ñëpp a ko moom waaye sagam ne daanu ca wala ndoowa ne daanu ca teen ba rawatina ne ca biir wala ndoowaa daanu ca teen ba masa ñi ci pind ba ñi sant busa rek a moom bis bu soobee bu ñu taxawee ci bunt wala ñu téye nit baa ñu gardey bool bisu Cheikh Abdou Khadir ñoom ñu ngi leen diwoo loolu nag sëriñ bee ma ko déey wax naa ko bisam ba nag moo jub siwaat di ñetti fan ci tam xarit yow mii di mbokk mbaa xarit ñëwal indaale say xarit ku jaaxle ñëw sa jaaxle jeex ku wopp ñëw sa wopp féex ku bëgg a gudd fan te weex tallak bi jaaw ñëwal xarit Cheikh du Khadir fii mu ne dend ak yoneen ba fee mu ne ak Bamba nag ca lay gënee gaaw nag ci faj aajo xarit